wax leen may leen ma taal leen lamp yi dafa bëla defal ko mu weex wax du ñëpp ko mën tabarkal dëgg la Karbala waaw dafa am lu am ba ba des dëgg la damay faral di dégg ñu naan anniversaire cadeau cadeau waaye ka tabarkal la masha Allah lu yàgg dëgg la ñun ñu fi toog nii ñoo nekk ndawul ca maam Ndiaye ma dëkk Cheikh ca place ba laa ko fekkoon mu nekkoon cak cak ca place bari jam lool nangoo liggéey lool yaru lool tabarkaala cag cag yaa ngi taxaw ñoom li coo ñoom fàllu ñoom ñoom tamaax xale yaa ngi nii toog fu ana fu fu na ñëw lu yàgg dëgg la dama ñëw ci man Ndiaye waaye balaa maa ñëw ci maam Ndiaye waaw tabarkaala macha allah dama ne xanaa xamoo ku fekk ko ci yéex bi dara daa fekk yéex bi fu sax jëmee mag yi jeex nañ jëmee ndaw yee fi de ku jiiroo da ngay fot balaa maa ñëw ci tabarkaala ajo maam Ndiaye dama ñëw ci fuu mi nga xam ne moo àndoon ak Seex Ibra ànd bu yàgg ba ñoo àndoon ànd bu yàgg ba tubaarkàlla ñoo àndoon nag protestant ba ba surtout anglaise ñoo àndoon tubaarkàlla macha allah ca Dakar bu njëkk ba ca Koungheul bu njëkk ba. te dara ñaawul te dara xewul tubaarkàlla balaa maa ñëw nag tubaarkàlla macha allah ci maam Ndiaye ñii mu dem ci rakam dama ñëw ci yow. ndax nag tubaarkàlla yoo xam naa ko léegi ku doo gis doomu na yem. juum yi ak Dabba ak ñoom li coow dama ñu fekkoon ca place ba ak Cheikh Ibrahima mu rafet loolu dara ñaaw ba ñag làmmiñ ñoom ñoo dëkk laale mënta ñàkk ndax parfois bëñ bi màtt làmmiñ bi ba mu sax te làmmiñ bi du génn bëñ bi du génn gémmiñ bi kon laale mënta ñàkk waaye tubaarkàlla koo àndal juróomi at baa nga àndal moom fukki at kooku ànd ba sincère la te yaa ngi fi tubaarkàlla da ngeen àndoon boobu petit la ba gannaa tay dëgg la ba takk jabar jot nga riij sa jabar te moom it bientôt mu takk jabar riij ko barki nit bi fuu moo yëkkati tabarkaale téeméeri junni tubaab di ko wax cinq cent mille. cinq cent mille. moo ko taw moo ko ndawtal tabarkaale xaritam ami daa France. xaritam bi nga xam ne ñoo àndoon bu yàgg ba fu moo joxe téeméeri junni tubaab ko wax cinq cent mille. fu moo yëkkati cinq cent mille. pour ko woowal nag dara fekk nag du ñëw taxaw nii. voilà pour ko woowal foofu mu ñëw. Ibra moo ko ko ndawtal wéew. yaa ngi may dégg. ndax caméra yi dañ maa tiim dañ naan ana ana téeméeri junni moo ko fi téeméeri junni tubaab bi ko cinq cent mille pour. dëgg la boo ma jógee nag ci fu damay daal di ñëw ci maam Ndiaye. Mm-hmm. lii la dëgg. xam nga li mu internet. dëgg la. xam nga boo toogee sa live bi di wax lu la saf te jëfee woo ko moom zéro yem. barke alxuraanu karim dama boo toogee sa laay bi di wax loo sax te jëfe woo ko moog zéro yem. moog zéro yem de. maam Ndiaye damaa seetaan laay fa mu ne ma maa déggee sa bés bi dama lay dawtal si. dëgg la maa fekkee la police bëgg. ma ne ko keroog bañ lay takk Kër Massar. dafa fekk man ak yow demeewul noonu. dëgg la te man maam sa bo ku ne xam ne tubarkalla ku ma lebal kër ma bu fay la guddi. dëgg la ku fi xewle ku ne tubarkalla sama waa ji boo wootee loolu amee da ngay bari sagar ku ci nekk tubarkalla sa sagara nga ca moom. dëgg la réew mi. boo jaloon sa jal bi ne képp ku ma mas sama yi boo laal kenn du laal nga bu teral baadoo teral say maat ba tey yaa ngi terale mi sa yaa tëdd barki leen tëdd mu ne ma zaal mbay ma a ko ah mu ne ma tubarkàlla lu géwél foor foor yaay sama géwél loolu la dëggalaat loolu la dëggalaat tubarkàlla foor foor yaay sama géwél loolu la ajatumaam jaay dëggalaat bi ma ñëwee damaa fekk mu jox Babacar Babacar Zal Mbaye sama la Zal Mbaye sama jébal la sama sama doom la joxal ma Zal Mbaye mu joxal ma sama teraanga te ba ko def toon tubaarkaal dama ko ci sikk waaye nag dafa reconnaissant rek def li ñu mel Babacar kaay nga taxaw nee na ko jamaay damaa bëgg rek tabarkàlla mu neex ndax dinaa nga àdduna bët ajatu maam Ndiaye Savon macha allah tabarkàlla macha yaay ñaar fukki junni cent mille. ci maam Ndiaye Savon ñëw ci maman mi nga ne gis nañ la taawu Momori ma des daaw. cent mille ci suñu ndee la coombaana bàkkoon damel daal di rim te sa sama sama am di nelaw sama rakk ji nga xam ne kur Cheikh Ibrahima yaayu Cheikh man ni ma def rek moo ma man wurus xaalis maa leen doon lu a mënti am dignité ma ko gën a. man nit bu ma respecté wu faale ma. da maa jox sama cër xam may kan li ma gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt tax na respecté nga ma jox nga ma sama cër xam nga may kan. dama ku ma jox ma wadda ah. te bëgg ñëpp nga ñëpp ko bëgg. man ku ma jox ma wadda ñaar fa ko jënd. 100000 francs si Mame Ndiaye Savon. tubarkalla 200000. jóge tubarkalla ci ajo si Mame Ndiaye Savon mi nga xam ne mise doomu la yaayam tudd taa la baayam tudd taalibe Serigne bi. Serigne Fallou la yaakaar Fallou wax sa baaraam bi ci kàddu gi bas ma bëri deux cent mille. deux cent mille deux cent mille. jëm ci maman Maam ma ne ko ah mu ne ma anniversaire cadeau. cadeau cadeau rek laa jox sama moo tax yaa ngi joxe cadeau bu mat cadeau. mu ne ma anniversaire ma ne ko ah mu ma cadeau. anniversaire de mariage trois cent mille ci Maam Ndiaye Savon. trois cent mille. trois cent mille. 300 000. Zane Mbaye Guèye ba ne ko ah mu ne ma tubarkalla maam Ndiaye sa euh, maman Birgère maa koy yor 100F moo leen yor yéen ñëpp ngeen dégg ma maman Birgère bëgg ma ne triste wul. te man maam Ndiaye sa bo aw ma temps aw ma jot. waaye maam Ndiaye sa bo nee na ku ko lebal kër mu fay la guddi 400000. 400000 la. si maam Ndiaye sa bo. waaw kay. tubarkalla téeméeri junni tubaab bi ko 500000 ci yaayi nga ne moo la wane nu ma ànd bépp xam nu. tabarka lu ñu am ci internet bi ginnaaw yàlla maam la téeméeri gëm. yaa gore 500000. yaa gore mënoon na see ba ne yaa neex a xeexal ma. fa tabarkalla macha allah néew nag jëmbul pële. wala mën a sàmm maam Ndiaye néew jëmbul pële de. wala ñeme sàmm moo ñeme naag. si maam Ndiaye 600000. yéen a ngi jot 600000. école bi ku ci génnee bari nag day bari xam sama waa ji gaynde la bu liggéeyul nii mu timitee nii bu ni ci laay bi di liggéey bi timit tubarkàlla gaynde la xadar boo ko nekk ci moom moo nekk ci man tubarkàlla fi ma toll woon ci cinq cent mille six cent mille sept cent mille maa ngi ci tax ngay tax te musul taxaw ne oo yaa tax may tax boo góoree rek ne ko ba tax ñuy tax ajo tamaam jaay sa bopp mi moo ko waral gore rek moo ko mën a. tabarkalla macha allah nee naa la xool kuy fàtt démb baaxoo. 800000. 800000. Babacar loo wax. 800000. tabarkalla 900000 te sama loxo ndey joor jóge ci maam Ndiaye Savon mi nga xam ne mission boo ko ko jur. mbokk bi yaay ku bañ ak sa deex. mbokk bi yaay tabarkalla Paa Hawa. sama rakk ji tabarkalla mu jëm ci ajatu. maman Virgère 900000. xuja mbaay. un million ni sama waa ji un million. Eh,

waaye ku am jom 500000 si ku bu la ko fàtte. laa ilaaha illallah nee na ma Zal Mbaye ma ne ko ah mu ne ma dama ne woon damay ndaw toon Nogay Kara ana Nogay Kara ana Nogay Kara Nogay taaliba sëñ Maodo Kara bi ñëwal Mame Ndiaye laa la fekkoon palaasam ngay liggéey te palaas ba tubaarkàlla day liggéey ca kër ga di toog taxawal nii ma ngay taxawal nii. waaw waaw da ngay daal maa fekkoon ca palaat ba ngay togg di yàq. indi sa doom bi mu ndaw lool tabarkaala ngay dama fekk biñ bu te ñeme jom waxul ma xamoon. bu sol jotee ñuy ci kaw sol may xooloon ma de guerre bi di xeex ak moom di leen teg moom. Nogay Kara. dugaloo ko numéro am. di am réer. ale ko maam Ndiaye Savon jox na mu nogay kara cent mille ale ko maam Ndiaye Savon paa ji jox na tabarkalla nogay kara ginnaaw bi mu joxee rakkam di waa Bigueur un million jox na nogay kara tabarkalla cinq cent mille cent mille yokk jox mu ngi nii ma yóbbu na la cent mille tabarkalla nee na sa diggante ak moom da ngaa baax da nga koo bëgg juumul de. may ma tuuti. maam Ndiaye balaa maa ñëw ci moom maam Ndiaye duñ ko gërëm dañ koy ñaanal. ndax xam nga tax duñ ko gërëm. maam Ndiaye sax bu ma tax duñ ko gërëm mooy. di nga ko wax li lépp nit ki yaa ko tax. boo waxee nit ki lépp wax yaa ko def. teral may man. dañ la léegi nag sax postal nga sa xew bi. ndax loolu it ma maam Ndiaye Savon nee na jox na la 100000. moo la ndawtal 100000 tubarkaala da nga koo bëgg. mais li ko gën a nekk ci moom ci Nogay Kara mooy fu ñu invité Nogay Kara daf na li ma mënti mel rek. maam Ndiaye moo tax ma mel. chaque jour fu la invité. bu la caméra yi kii nii. lu ko ko réyoo di ko wax. da nga naan Mame Ndiaye Savon moo ma mel ni moo ma def ni ma mel moo waral tubaarkàlla ma bëgg am fu mu ne te ñaata ko ñu jox ah Mame Ndiaye Savon mooy suñu xanaa loolu kay balaa ñun ñëpp dañoo bëggante dañoo nekkoon benn place dañoo bëggante dañoo nekkoon benn place mu rafet lool mu neex lool première fois Mame Ndiaye ci dëgg Dakar mu taxaw dañ daan fii si bay taxaw ci kaw ci kaw oto yi barke Alaaji Fall mu jéggi tali bi def lu mu saf yaa ngi dégg ndax xol lañ doon demee ak moom muy demee ak ñun xol ma maman Jokalante ñëwal nga ne loo wax ci maam Diagne. damaa bëgg nga gërëmal ma maam man maam gërëm sekkatuma ak moom sax ay gërëmante. sekkatuma ak maam nee na ay gërëmante. d'accord ndax nag tubaarkàlla macha allah. damay damay wax nee na fukki at tubaarkàlla fukki at. nee na 10 ans muy ànd ak maam Ndiaye te dara ñaawul. bi mu njëkkee jàmb saabu man ak Fante boobu ak Fanjaay ñoo ñëwoon ca appartement ba. bi mu njëkkee jàmb saabu boobu saabu ba Fante boobu ak Fanjaay fa ñëwoon ca appartement mu mel nii mu mel nag yàgg ñoo ji teranga ci ñun ñëpp nag. mu yàgg ji ñëpp ndax soo gisee su ma waxee sama seexi tudd ko ci moom. Ah. daf maa ji loo xamante ne du xaalis de. du xaalis la ko ji. ndax xaalis bi léegi la bari. xaalis bi léegi la bari. musóor yi léegi la saf gom oto yi léegi la saf gom la ñàkk gore mu amul dara. mu ñàkk nag. nga taxaw soxla présence su nit. dëgg la day taxaw. dëgg la. TikTok bi bi ma siiwee. su ma amee problème bi ñu jubóog léegi. appelam laay njëkk a gis. nee na boo amee problème appelam maam Ndiaye lay njëkk a dégg ci téléphone day jël càq-càq gaara otoom ñëw ba sama place ba mu ne ma nañ tase sama kër ñu waxtaan mu yedd ñu waxtaan mu yedd ko ne ko defal nii. mu jàpp ma nag di ma sëyloo sama sëy bii. di la sëyloo sëyam bii tabarkàlla. ci Cheikh Ibra sama Cheikh Ibra mi amoo fayam. Cheikh Ibra maya gooma ne nee na Cheikh fekk na say njaboot mu mu gàddeel la say njaboot. nee na mu gàddeel la waaye maam Dia xam nga lenn rek laa lay ñaanal. loo koy yàlla may la boroom kër ba ma lay fay ci sa bopp. laay laa xay la laa boobaa man koy fay ay borom. loolu sax dafa sori. ah loolu daa sori. ndax sama jëkkër ji. sa jëkkër ji. ñaan naa yàlla am ak moom seex ndax man juróom ñaar laa macha allah. macha allah nee na ñaan naa yàlla am ak jëkkëram seex. mu doon doom bu jigéen mën a tuf ne maam Ndiaye. laay laa xay la laa loolu la mel ni jàpp. xam nga lu tax. lu. tax. lu tax loolu du seefaa de. du seefaa. ndax man dara fekkul sama bët. dëgg la waaye ki tax ma xam ko. ki tax nga xam ko. damaa ñëw palaasam di liggéey tax ma xam ko fii toog. moo moo tax nga xam Cheikh Ibra mii fa lañ ko xamee woon ñëpp. kii nag moom aw fayam. amoo fay Cheikh Ibra nee na. Sall Mbaye Cheikh Ibra mii toog. Cheikh Ibra mii toog. da koy seedal àdduna sépp ñu da koy ci jëkkëram ji. ndax xam nga lu tax. na. ma yor samay seex mu nekk ay xale. mu yor ay doomam mu nekk lool. Sall Mbaye samay seex pour ñoom kii mooy seen papa. nee na ay seexam pour mooy sang. mooy sang bu ñu ñëwee weekend. mooy laab mooy laab bu xale bi mu taale oto bi delloo leen kër Masaar dañ doon jooy. xale bu leen delloo seen kër maam dañuy jooy. kon deseetuma yàlla dara. nee na deseetu la dara. kii man maa ko deseel. nee na tubarkalla moom moo la deseel. ndax at ci ren. ah at ci ren. mu ji ma ngor ji ma teraanga. mu ji la ngor ji teraanga. bu ma fàttalikoo bi ñuy dem jawbe be ak moom. nee na bu mu fàttalikoo bi muy dem jawbe tabarkalla ànd ak sëriñ nga. xamul jaay géej de maa ko xamal. nee na xamul jaay géej gi teg teg la xamoon moo ko xamal jaay géej waaye ni ma ko xamee woon daa ak ren. nee na changé wul benn yoon. changé wul de. déedéet. su ma jotee ak samay xarit mu xam ne ñii samay nit lañ du ci dugg. bu jotee ay xaritam tabarkalla mu xam ne ñii amee daa paasam la du ci dugg. keroog bi ma jubóo ak maam Ndiaye damaa woo sama néeg ñu tudd ba xaaju guddi mu ne ma dama lay ñaan bu dee sa borom kër rek laa bu dee bëgg nga ma rek te yàlla rek tax. Mhm. maam Ndiaye bu leen mës a joti ci àddina. def ci àddina dama ci tànkam ndax amuñu kenn ku dul moom lu ñu mel moom la. lu ñu mel moom la de. ma gis ci moom gore gis ci moom fulla gis ci moom fayda gis li mu gis ci moom nee na bari na fulla ak fayda personnalité. te loolu boo amul ci moom zéro yem amoo fulla amoo jom amoo ngor yaat ma la yeeyam. ndax boole mooy lépp de ndax CFA du dara de. nee na CFA du dara. te milieu showbiz bi day jeex de waaye boo gisee ku gore daa may même ma sëñ soo gisee boo gisee ku gore. waaye sama ngom dem ba taala bakkal ko. nee na ko. loolu uuf ma xiifu ma. nee na bu ma ko xiiful ma wala ma lu ma sax laay def. nee na jooyul ndeyam ci tabarkal la. ah. damay toog semaine du ma toog. nee na toog semaine yàlla du toog. su ma wàccee. su wàccee. damay tëdd. day tëdd. su ma tëddee. su tëddee. day ñëw dugg ci waañ bi bébé loo bëgg ma ne ko lii mu dugg ci waañ bi toggal ma ñëw indi ci lal bi na ma lekk. waaw waaw laay laa xëy na laay. waaw. mu mun a muñ nag maam Ndiaye tey ma wax la ko. ah. mu mun a muñ lool. ndeysaan ndax man damaa sikk te bëri caprice. damaa ba sikk bëri caprice. xam naa ne ku nekk mun ngaa muñ. mun ngaa muñ. waaye sama jëkkër ji damaa jàppale. da koo jàppale xel ba ba cay daru. su millions yi dajaloo wee. ah li ko baa ngi fi di 6 millions. waaw. buntu yëpp ubbi na dina xale bu ndaw la. bu jëloon sama xaalis daw ak moom barke allah ji fàllu mbàkke du ma ko dàq. du mujj fenn. waaye buy jënd caleçon sax day ñëw na ma bébé. waaye Cheikh Ibrahima du def loolu xam tax. ku ci nekk ni nga toll rek ngay defee. Ah, réew mi. nga nekk ni nga toll rek noonu ngay defee. tabarkaala sama waa ji daa fekkee tabarkaala dama ne. sama jëkkër ji comme yow nga gor moo waral du jël sa xaalis di dox ak moom. te da ngeen ndax maa moom ñooy liggéey. yéen a ko bokk sax nag tubaab yàlla waaye seen ma de. aw ma fayam. man sama doom yi ni leen def rek moo ma neex sama doom yi sama njaboot ndax doom dafa sax si xol. barke mu téye sama doom yi respecté leen téye leen fonk leen. sama doom yi bu ñuy woote seen allo papa ñëwal nga jël si.